salaamaaleykum kilifa yi ñu ngi ziar bu baax waaw dama gis nag boobu ba léegi am na ñuy dugal caravane naan samedi ci quinze heures la ñuy quitter pour dem ma leen di yëgal ni leen euh, samedi ci minuit kenn dootul mën a bouger samedi ci minuit nekkul samedi si guddi jëm dimanche de mooy àjjuma ci guddi su vingt trois cinquante neuf jotee kenn dootul mën a jóge ci benn région dem ci beneen région maanaam vendredi su guddi. kum fekkul nga dem nga dem voté ji dootoo mën a dem voté ji maanaam bu fekkee ni yow Dakar nga nekk bëggoon voté ji Thiès bu la fa àjjuma ci guddi vingt trois heures maanaam onze heures ci guddi cinquante neuf minutes bu la fekkee biir Dakar yow dootoo voté loolu foog ñu leeral ko nit ñi ndax dama gis ñoo xam ne dañ la ñuy dem buñ ne suba la élection yi buñ ne suba la élection yi nit mënu see tukki jóge ci région dem ci région mënu jóge Kaolack dem Fatick mënu juge Dakar dem Thiès mënu jóge Thiès dem Louga. waaw te loolu nag il faut foog ñu leeral ko nit ñi nañ tasaare audio yi ñu wax ko nit ñi ne leen vendredi su guddi xam nga ci la campagne bi di jeex vingt trois cinquante neuf bu campagne bi jeexee dootoo mën a jóge si dëkk région dem si beneen région mën nga jóge pikin dem Géejawaay ndaxte Géejawaay ci Dakar bokk Pikine ci Dakar bokk mën nga jóge cees dem Tivaouane ndax Tivaouane si Thiès sa bokk waaye mënoo génn région bi fu guddi aj guddi samedi jotee maanaam vendredi ci guddi ajjuma ci guddi jëm samedi ci guddi bu vingt trois heures jotee cinquante neuf minutes maanaam minuit jot rek jàppal ni mënutoo génn région dem ci région loolu foog ñu